La partie civile, monsieur Mambaignan, s'était dit satisfaite, s'était dite satisfaite lorsqu'elle était sortie de l'audience et a remercié tous les Sénégalais. Euh, temps après, il a été reçu en conférence de presse et il a dit ceci. Ousmane Sonko n'a pas encore échappé à l'inéligibilité. C'est lui qui le dit. La réponse à la question de savoir qu'est-ce qui les motive est claire. C'est pour le rendre inéligible, c'est pour, pour qu'il ne participe pas aux élections présidentielles en Alors, est-ce qu'on qu a le droit d'utiliser la justice pour écarter, écarter les adversaires politiques Je que ce temps est révolu. Et l'agenda de la justice, disait Maître Amadou Diallo tout à l'heure, n'est pas l'agenda des politiques, mais l'agenda des médias. Euh, il faudrait qu'on laisse la justice respirer un peu et laisser les politiques compétir ailleurs. Khalifa Sall a été condamné le 30 mars 2018, à 5 ans de prison. En juillet 2018, sa peine a été confirmée en appel. Et en décembre, la cassation est intervenue pour confirmer l'arrêt. En février ou janvier, sa candidature a été déclarée irrecevable. Les wolof ne disent-ils pas que coup d'eau trahi sa main au lycée Donc nous avons très compris que la position de principe du parquet, qui relève appel d'une décision qui oppose deux privés, nous avions compris que c'était simplement pour essayer d'écarter quelqu'un euh, de la course. Parce que, parce que la l'appel de la partie civile Mame Mbaye Niang ne peut porter que sur ses intérêts civils seul l'appel du parquet en cause les dispositions pénales du jugement ça résulte des dispositions de l'article 503 du si seules les dispositions du parquet s'il est vrai peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement seul cet appel du parquet peut permettre de corser la peine on est on passera donc de deux mois à trois mois et si on est à trois mois Ousmane Sonko ne sera plus candidat. S'il est condamné en appel à trois mois, c'est-à-dire un mois de plus, il ne sera plus candidat. S'il est condamné à une amende, parce qu'il n'a pas été condamné à, condamné à une amende, mais à des dommages intérêts, s'il est condamné à une amende supérieure ou égale à 200 000 francs d'amende ferme, il ne sera plus candidat. Si la cassation confirme la position de principe du juge d'appel. Donc on est dans une pente dangereuse. le il faut le dire, il ne faudrait pas qu'on utilise la justice pour rendre inéligible un adversaire politique. Il faudrait également qu'on respecte le calendrier judiciaire. Nous nous sommes amusés à revisiter le rôle, c'est-à-dire l'agenda des audiences ce matin de la Cour d'appel, et nous nous sommes rendus compte que les affaires évoquées à l'audience dataient de deux ans ou un an. Rares sont les affaires qui sont évoquées cette année, ça n'existe presque pas, est enrôlée. Si ces affaires sont enrôlées, elles, étaient évoquées en janvier et donc elles ont été enrôlées 4 ou 5 mois plus tard. Or, si on respecte cela, ne serait-ce que par rapport au principe de l'enrôlement normal des dossiers, on ne, personne ne peut avoir le temps d'invalider une candidature. Donc, gérons les dossiers normalement, gérons les choses normalement. Nous ne sommes pas contre le principe d'une justice, mais nous voulons une justice qui soit rendue dans les règles de la vue des politiques. parce que c'est c'est c'est c'est impressionnant la vitesse avec laquelle Khalifa Sall a été éliminé en tant que potentiel candidat à une élection présidentielle que cette même logique doit se reproduire et donc il y a fort à craindre que euh, dans les meilleurs délais l'appel soit enrôlé que la peine ne soit aggravée et que la cassation ne confirme cela pour qu'en définitive le président Ousmane Sonko ne soit pas candidat à la compétition électorale de 2024. a un fait majeur également qu'on voudrait dénoncer, on l'a dit, la question des barricades. Mais ne n'êtes-vous pas choqué par le fait qu'on puisse briser, briser la vitre d'un véhicule, d'une personne, pour l'extirper de force et l'amener au tribunal Parce que c'est comme si on avait plus une certaine capacité d'indignation, mais c'est des faits extrêmement graves. quelqu'un qui se rend au tribunal vous vous accordez vous-même la liberté de briser sa vitre de le faire sortir de force et de l'amener à comparaître au tribunal pour un dossier de droit commun de diffamation sans mandat d'un juge sans ordre de quelque autorité judiciaire que ce soit et vous vous permettez ensuite de barricader son domicile et de l'empêcher d'exercer sa liberté d'aller et de venir et cela ne se passe qu'au Sénégal Et ça semble n'étonner personne. Et donc ce sont là des violations graves des droits humains qui aujourd'hui devraient être sanctionnées. Et dans ce, sous ce rapport-là, nous avions déposé des plaintes, aujourd'hui restées sans suite au parquet de Dakar. Je voulais juste vous donner deux exemples. Le dossier de euh, Souleymane Télipo. Ce dossier a été évoqué le 2 avril 2021. il est mis en délibéré pour le 18 avril 2023 donc deux ans jour pour jour le dossier de Barthélémy Diaz il est pendant depuis presque dix ans ou plus alors pourquoi veut-on parce que simplement on veut écarter un adversaire politique de la partie de la, de la part de la partie civile faire accélérer les choses dans quelques mois un mois ou deux mois juger l'affaire dans trois mois quatre mois juger l'affaire en cassation appel cassation élimination mais si on laisse passer cela mais on sera peut-être indolent vis-à-vis d'une certaine violence qu'on veut exercer au cœur du droit ce n'est pas tolérable